tey foofu la ñu xëy door dañuy jël ak yéenekaay bii di réew mi quotidien moom la mu xëy directement moo di bilan bi mbind mu rouge la ko bind boole ceekit lu weex li muy wane mooy yëf yi metti gu mu metti hectare gu mu metti juróom-ñetti doomi aadama yu faatu téeméer ak lu teg yu ci jële ay gaañu gaañu ci euh, final coupe de la ligue bi nga xamante ji moom moo amoon fële ci stade Demba Diop yéenekaay bi xëy ci dellu soir ba noppi boole ko gile kàddu mooy inacceptable xamante ne ji moom moo xew ca diwaanu euh, stade euh, Demba Diop keroog samedi euh, yëf yekk ni mu demee juróom-ñetti doomi adama yi ci faatu ñoom ñëpp seen tura ngi Babou Seydou Diouf Oulimata Tall moom rek moo ciy jigéen ak ki nga xamante ne ji mooy Mame Bou Kounta Sow moom football kat la woon ak ki nga xamante ne ji moom mooy Assane Diom ak euh, ñoom Mbaye euh, ñoom ñëpp daal seen tur ngi ci Pape li doy waar mooy am na ci koo xamante ne ji 17 ans la am l'observateur nee nañu football rek la doon def jéem nañ ko génération foot jéem nañ ko institut jàmbaar ngir na mu mucc mais dafa ñëwoon doon am ku mu doon sauvé fa la ko lépp l'observateur xëy ñu ko xamal mbir yeeg ni mu demee mu def ci benn jeu de mots mooy je m'en foutisme di maata yeeg jëfi bay bayal ji nga xam ne am na ci euh, footballu Sénégal las moom gis lu raw loolu las yéen kay bêtise la gis bêtise mu di njombe lu rëy loo xam ne Eh, tax na juróom benn eh, juróom-ñetti doomi aadama eh, faatu ci Sud Quotidien moom it ak beneen baat bu xaw a mu di horreur ci gàttal musiba mbabba kumba moo am ci fi nga xamante ne ji moom moo di stade Demba Diop keroog samedi Le Quotidien nañu la coupe est pleine ci gàttal coupe bi mën na sëkk ndax fu ñaawteef toll fu tiis toll rek ñi ngi ko fa doon séentu yéen kaay bi nañu waa Mbour ñoo ngi jooy seen doom jamono ji ñoo ngi jooy seen néew jamono jur jéye ji 2014 ca euh, ñi nga xam ne ñooy protection civile ne woon stade bi amatul norme yi war a tax muy abrité yenn rencontre yi mënut a dalal mbooloo ndax stade bi dafa màggat ñu seetaan ko bàyyi ko ne enquête mel ne ku xëy di ko feelu ci moom mbir ndax le prix du laxisme la gis maanaam euh, jëfi néewal ak jëfi bay bayal ji nga xam ne ñi ngi koy nemmeeku moom moo jur li Pape xoolal euh, photo bi ci xët mu njëkk enquête gis nga benn waay bu faatu wees na ko loolu moo am ci fi nga xam ne mooy stade Demba Diop stade yéene kaay moom it xëy ci moom la mbir ak bile euh, titre drame à Demba Diop fukki doomi aadama yoo xam ne faatu nañ ci moom lim bi noonu ñi ngi juróom-ñett moom 10 la wax ak 102 personnes yoo xamante ne ji dañu jële ay gaañu gaañu ci li xewoon ci stade euh, Demba Diop libération xëy ñu xamal ne lu aju ci li nga xamante ne ji mooy moom la mbir procureur de la république tey xamal ne seen fan doy na waar ndax ñoo ngi ci diggante euh, dund ak dee loolee libération moo ñu ko xëy xamal soleil national xamal ñu ne président de la république Macky Sall euh, santaane na ngir ñu amal ci enquête bu am solo ngir yooyee euh, dem ba jeex ñu gën koo leeral observateur sax mi ngi ñuy xamal ne enquête boobu président ñaari weer la appal ñii nga xamante ne ji ñoo roy enquête bi ñu jeexale ak la tribune mi dikk ak ñun ci taxaw seetlu bu mu def ci Sénégal ak li caravane bu Benno Bokk Yaakaar ca Fanaay ga ca Matam moo ko mu faatu pap